original ay waay fii pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp ku nekk ci réew mi xam na débiteri le mbote 1 chez Papis bu Serigne Saliou numéro téléphone am di 77 036 50 88 wala fixe ba di 33 822 13 88 ndaxte nag débiteri le mbote 1 Médina rue 11 angle 8 ñépp a ko bëgg a toppandoo ñi nekk ci biir Facebook bi naan ñoom ñooy le mbote te moom moo créé markam gën fi safle dibi loolu dafa leer débiteri le mbote 1 méchoui sur commande grillade sur papier pigeon moo ci mën poulet moo ci ci mën dibi bu ñu saaf yëfam la méchoui sur commande wala possibilité vente détail débiteri la mbote un papis mu sëriñ saaliwu mi ngi nekk fii ci Médina rue 11 angle 8 dafa am ñoo xam ne dañ koy piraté naan ñoom la nekk ci Facebook bi di détourner clients yi gars yi wàcc leen la mbote bàyyi leen papis bàyyi leen papis borom méchoui borom dibi saaf numéro bi rek la am 77 036 50 88 wala 33 822 13 88 fii la safe beauté, on est ensemble. Ça bouge pas. jërë ngeen jëf mbokk bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV Naar Fall mu ngi leen nuyu di amaan mbégte bu baax ak contentement di jàkkaarloowaatee ngeen mbokk yi ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aaday di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm leen xaare leen aljana ñi tawat yàlla yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féeti ginnaaw yàlla neen suñu borom génne bañ del siwaat suñu biir ñu leen koy defal comme leen koy defalee saa su ne mbokk yi nee na leen fu actualité làmb nekk dinañ fa dugg waxtaanee ko waaye mbokk yi tey ñu ngi fii ci Dalifort jël si kenn koo xamante ni yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté muy kan Yaya Kara man ma tuddee ko le monument de Yaraax waaye ñu fekk fii ci Dalifort ci bitigam macha allah kaay sañse nee naa la képp ku bëgg sañse rek fii ngay ñëw ci Dalifort ku gis nii ñu def tey xam ne moom moo fi jaar yaakaar naa ne am na yeneen yoo xamante ni ñoo dàq yi képp ku fi ñëw rek sa xol dina sedd xam naa ci kanam tuuti dina joxe numéro bi ba képp koo xamante ni bëgg nga fi ñëw rek nga ñëw mu def ak yow yu baax waaye mbokk yi ku ne xam na ni dañoo génn ci kalaaf mu bëri coow caatu yaraax finaalu Doudou Sané finaalu waaye yaraax ne du ñu bëre final bi xamuñu nag lu waral loolu dé bërki démb ñu gis signature TFM ay coow judduwaat fa ñu gis Abdou Lahad Ndiaye génn am nu mu waxee Doudou Sané teewoon na moom it ca signature ba waaye mbokk yi loolu yëpp dinañ ko leeral waaye le 27 juillet incha allah Baol production le 20 ans de Baol Moussa Ndoye ba tey doomu yaraax war koo bëreek mbay guy gi loolu yëpp dinañ ko waxtaanee duñ def lu dul jox Yaya Kara le monument de yaraax mu nuyoo ñu dugg moom ci waxtaan bi borom kaay sañ sa bégg naa la ziar. waaw Mohamed maa ngi lay béggee maa ngi lay ziar bu baax euh, waa Sénégal yëpp rawatina kilifa diine yi di gërëm suñu ñaari waajur yi ginnaaw bi ñu jëlee si yonent bi xam nga ñi ngi amaat mbégte ak kontaan bu baax di jàkkaarloo ak yow. macha allah le monument de Yaraax tur bi dafa mel ni gars yi fi mu ne nii tàmm nañ ko de. waaw peut-être euh, daa mel ni yaa ko tàmbali nag moo tax euh, peut-être gars ñu ngi koy répétaat boobu ba léegi. macha allah mais da ko wane ñu gis saa bu Yaraax amee loo xamante ni da nga ci war a taxaw da nga ci taxaw euh, def ci sa kéemtulaay kàttan. avant ñuy dugg ci li nga xamante ni mooy làmb sa digganteeg euh, yaraax lan la. waaw loolu du diggante mooy comme waxoon naa ko bee paase rek yaraax moom dëkk bi nga juddoo. Mhm. exemple même boo demoon tey ba New York d'Amérique bu gën a mag ci àdduna bi. Mhm. munoo raw munoo raw fi nga juddoo. Mhm. parce que foofu nga juddoo say famille fa lañ ne. say waajur fa lañ ne say mbokk fa lañ ne. te ñëpp xam nañ ne mbokk daa neex même boo voyage yoon liggéey njëkk a xalaat mooy ñi nga dëkkal. waaw kon nag ñun fa ñu dëkk. buñ ko représenté wul fan la ñuy représenté loolu la rek xam li la war. Uh-huh. day gën a yombal li la war quoi. voilà. am mais jamono ji ñu gis beneen yaraax yaraax wane beneen xar kanam ci làmb ñu gis yaraax boo xamante ni macha allah euh, gars yi dañ daan wax 100 pour cent 200 pour cent mais li ma fa gis euh, dafa mel ni 1000 pour cent beneen xar kanam bi nga xamante ni yaraax wanewaat na ko ci làmb la moo ko war. waaw xam nga yaraax dëkku làmb la. Hmm. maanaam yàgg na ci làmb. Hmm. dëkku Baye Abdoulaye Diène. ah dëkku ñoom saa yaraax dëkku ñaabali dëkku siidi kàdd gi dëkku Moussa Ndoye dëkku wës jàmbaar dëkku caatu yaraax dëkku loosoo dëkku ama bu yaraax ñaata mbër ñoo fa juddoo macha allah ça des années mhm. kon nag foofu làmb war na fa mën a feeñ mhm. te ñu ngi am ay résultats yu tax làmb war a mën a feeñ foofu peut-être nag mbir moo gis mhm. danga koy liggéeyal tollu benn moment du ñëw mu tollu benn moment mu fay la dafa jot yaraax fayeeku ci làmb moo waral tey mu demee noonu rek yàlla mooy dogal maanaam mbir di nga ci nekk comme li ma lay mun na yéex kii dugg ci dara mu gaaw kii dugg ci dara muy yéexantul ba jég saa rek jóg mhm. loolu yëpp nag ngëm-ngëm moo la koy permettre parce que des fois affaire bu méttee mhm. il faut nga am patience boo koy xaaree uh-huh. kon nag je pense que yaraax patience boobu la am tey ba tey mu neex ci ñoom ndax yaakaar naa ne dernière douze heures yëpp mhm. coow bëpp ci la ci coow làmb yaraax la kon nag loolu dayay wan ne am na résultat bu fa moo tax mu am loolu voilà donte yaraax amoon na coow ginnaaw bi nga xamante ne ay xale ñu ngi fi di bëre di daan victoire di dugg si mais dafa am leneen loo xamante ni dafa beesaat yaraax yeewaat yaraax yeewaat làmb yaraax muy voyage bi nga xamante ni Moussa Ndoye voyage yi woon na ko ñibbisiwaat ñu gis taxawaay bi nga xamante ni waa yaraax am nañ ko ci defal ko feu de joie sargal ko ci ñibbisi bi euh, lan moo waral loolu ak li nga xamante ni defal nañ ko Moussa mu nekk lu rëy waaw loolu mbër yi ñoom ñoo jëlal seen bopp initiative toog réunion ne musaandooy buy ñibbisi dañ koy teeru général képp kuy mbër dafa war dem ci aéroport bi ak staffam moo waral keroog gis nga fa loosoo gis nga fa ama bu gis nga fa caatu yaraax gis nga fa wës jàmbaar gis nga fa képp ku nga xam ne mu ngi ci staffu wës jàmbaar wës caa kii keroog te loolu dafa am symbole bu muy wane parce que bu ñu gëmee benn affaire di ko doxee i faut ñu wane ko waaw kon loolu Moussa tamit am na ci sas bu rëy te waxal na ko boppam la fait que ngay ñëw mhm. ñëpp bàyyi seen yitte ci heure boobu zéro heure une heure toog fa ba trois heures du matin di pour teeru la mhm. kon combat bi am na fu mu leen toll ñoom waa Yaraax mhm. moo tax combat boobu noonu nekkul combat bu Moussa di perte combat gañaa la quelque que soit Alpha lu mun a xew laa la wax lu mun a xew combat gagnant la pour Moussa parce que loolu la ñuy xaar ci moom un grand retour encore pour Moussa Ndoye pour mu mën a delloo boppam fi mu newoon ci làmb parce que place bii du place am loolu nag comme li may wax keroog rek moom moo war a ñëw confirmer parce que tey exemple ay rakam ñu ngi koy dab caatu yaraax mu ngi ñëw voilà kon moom day confirmer pour mun a yéegaat fa mu nekkoon voilà macha allah mais jamono ji mu mel ni euh, combat bi da ngeen koy di ngeen ko ci gën a dugal mais mel ni adversaire bi nga xamante ne am ngeen ko muy mbay guy gi dafa mel ni dangeen ngeen koo xaw a euh, xeeb ci ni ma gisee ni gars yi di waxee wala niñ koy ni ñuy doxee. non mbay xeebuñu ko xam nga nit kenn du ko xeeb. mais dafa am li nga xamante ne mën moom. yàlla day dogal kii mën lii kii mën la le yow am na li nga mën te mënuma ko am naa li ma mën te mënoo ko. waaw kay léegi loolu nag la nit ñi différencier. Moussa Ndoye am na lim mën ci làmb te mbay guy gi mënu ko loolu làmb moo koy seede du ñun. si différence qualité bëre yi ci ñi Moussa Ndoye bëreel ci ni muy wanee ci làmb buñ tegee image yi rek képp ku xamutoon Moussa Ndoye sax dina xam ne Moussa Ndoye ak Mbaye Gouy Gui bokkuñu qualité bëre bokkuñu sañ-sañ ci làmb loolu moom c'est important mais Mbaye Gouy Gui champion la comme ni ma koy waxee moo tax tey mu jël Moussa Ndoye ku daan marle daan ko li fay mhm. waaw daan armée boog waaw ah. kon nga xamante sawaay boo boo boo nekkuloon daanaan musaandooy du la jër ndaanaan la waaye Moussa Ndoye mooy ndaanaanu ndaanaan yi comme ni ñu koy waxee rek waaw am na solo mais la ma tax suwaa nekk nekk Mbaye Gouy Gui manque adversaire la wala parce que gars yi amoon na ay adversaires yu ñu doon lim pour Moussa Ndoye mais lu tax ngeen taamu ci Mbaye Gouy Gui waaw loolu moom suwaawu Moussa Ndoye la ak staffam parce que Moussa musaandooy la mais am na staff ginnaaw Moussa Ndoye quoi mhm. parce que dinañ la tegal diw ne la diw ne la diw mhm. yow nga choisir sa staff bi na la non kii la ñu gën a gis ni mun nga bëreek moom parce que tam mënoo jógee ci lu métti di duggaat ci lu métti bu ci leneen duggee rek day indi leneen uh-huh. waaw kon nag peut-être gis na ni loolu mun na mun na am réussite ci combat boobu mu jël moo tax ñu engagé jël mbay guy gi uh-huh. waaw mais mbay guy gi comme li ñu adversaire la tam uh-huh. parce que mu ngi ci làmb ji mu ngi wan ay preuve am waaye comme li ma wax rek bi yoon moom amul sens quoi fi mu daal moo baaxul. amul sens non non. macha allah bi ñor na waa Yaraax kon tey lan lañ mën a xaar le 27 côté mobilisation côté animation parce que Moussa mu koy ñaan promoteur bi Assane Ndiaye na ma mayee dinaa indi lii dinaa indi laa tey lan lañ mën a xaar. waaw xam nga moo danta bi mu jël see caatu Yaraax dama ko ne caatu Yaraax ci combat contre caatu Yoff lañ koy sampaloo drapeau fii ci Yaraax. Mhm. te loolu am Moussa Ndoye itam combat ku jël Lagros ñu ne moo la mën ku jël ki nga xamante ne mooy Alioune Seye ki jël ki nga xam ne tonnerre wax dëgg yàlla bëreeg mbay gi moom war la def effet mais maanaam Moussa Ndoye combat bi lañ koy sampale drapeau parce que yaraax dañ kaa jiital ci sas ba nga xam ne musuñu ko def mhm. te moom sportif la mhm. du am perfection ci làmb quoi. Mhm. benn lenn rek laay xalaat ci moom mooy comme li may sañ-sañ bi bari na ba tax ka ni nu muy aborder combat des fois. Mhm. waaw loolu loolu loolu ci nit lay nekk naturel dafa am li nga xam ne nit moo ko moom. Uh-huh. sañ-sañ du ñëpp ñoo koy am. Uh-huh. am ñam am sañ-sañ. Mhm. ba lu ñu dugg rek seen sañ-sañ moo leen di permettre sañu gaaw ci. am ñi nga xam sañ-sañ ci dara. lu ñuy dugg dañuy xalaat. loolu la nit ñi différencier mais du leneen. am na solo loolu mbokk yi la 27 la du ñàkk ñu waxtaan ci mais li nga xamante ni lëmbe na yaraax lëmbe làmb muy coow loo xamante ni depuis une semaine wala lu ko ëpp moo lëmbe làmb ji muy coowal caatu yaraax ak ki nga xamante ni mooy Doudou Sané dinaa bëre duma ma bëre barki démb gis nañ face to bi am TFM Doudou Sané ñëw gis ñu fa caatu yaraax mu mel ni waa yaraax ba léegi ña nga ca lan waaw xam nga làmb moom ak coow. coow du tay la commencé ci làmb. te du tay lay jeex ci làmb. te làmb bu amul coow. du làmb. làmb ak coow. te li dal Caatu Yaraax c'est pas la première fois mu dal ko kalaaf yàgg na fi am te kaka tëgg eggalee ko kalaaf yàgg na fi am muy am coow yu mel nii promoteur yàgg na joteeg mbër danga maa mel kase ameloo ma kase danga maa war a bëreel maa la njëkk jox avance dal na fi ay mbër du ma tuturu kenn mais dal na fi ay mbër plusieurs fois kon loolu day firne làmb ak coow ñoom ñoo ànd waaye nag liy important mooy mbir su xasee taxaw ñi ko sekk nañ doon ay kilifa ñu nekk ay responsabilité di xam ni ñuy waxee di xam ni ñuy comportement yi du xam ni ñuy démarché ci jàmm mais bu fekkee ñi ko sekk dañoo xam nga responsabilité c'est pas une affaire buñ la jox responsabilité mat la mooy dañ laa dénk yow micro bi nga yor nan nga koy aborder nga mot kaa yor soo demee ci nit ki moom sax mooy am amuuru mun a wax ak yow mais bu fekkee dañ laa jox responsabilité te motoo ko ay problème rek moo ciy jur mooy li am nii ci combat bi waaw macha am na solo mais ñu gis keroog face to face bi euh, coow am fa ñu jox ki nga xamante ni mooy Abdou Lahad kàddu mu am na mu waxee ba tax ba dal ci kaw mbër mi nga xamante ni mooy caatu yaraax ne day bëre si force fii la ñuy xamee ndax CNG bi li ñuy wax ci ñoom dëgg la wala du dëgg mu mel ni ku attaqué caatu yaraax mel ni ku ko mere. Abdou moom li ma koy njëkk a yóbbante mooy fii lay xamee ñun waa yaraax am nañ fulla wala am nañ fayda fii lay xamee ne ñun mhm. dégluwuñu ko faalewuñ ko. sañ-sañ bu ma mbay wax am nañ sañ-sañ bu ko triple te lépp lu muy wax ci dossier bi peut-être daa jege daa ñàkk a desee xam dossier bi lu mu wax Caatu Yaraax amalul Gaston Production contrat pour le moment contrat bi doxoon digganteem ak Gaston Production trois combats la woon te bëri na ko moo nekk tey njaaytin moo nekk Caatu yoof moo nekk gàmmu Gueye dañ laa ne Caatu Yaraax engagé na gala bi nga xam ne da ciy dugg ak ñetti mbër yi muy Caatu Yoff di Gamou Gueye di Ndiaye Tine su leen bëree ba pare point point moom jeexal na wax fa la yem ñu teg ci leen en finale bu amee mhm. en cas de finale c'est pas forcément dafa am li nga xamante ne suñ ko waxee caat bu ko engagé wul mënu cee dem. caat lay neex mu engagé ko parce que bu ñu nee en cas am na loolu beneen beneen nouveau contrat moo amaat. caat mhm. bu ko engagé da koy bëre. Mhm. dañuy taxawaat sax signé waat un nouveau contrat bi nga xam ne day lié promoteur bi ak ki nga xam ne mooy lutteur bi. Mhm. mais bu fekkee lutteur bi engagé wul même bu promoteur bi engagé bu ko def du am. waaw. Uh-huh. macha allah mais mais kaddu Abdourahmane Ndiaye noo ko gisee ay CNG bi fii la ñuy xamee fii la fii la làmb di bàyyee yàqu ba faw waaw moom laa la xam nga sànq dama la jiitalal ci wax ne na la mbir buñ nit ñu ko dénkee mbir. te motu ci kilifa. ay problème moo ciy am. mooy li xew nii. Gaston production laa yóbbante message boobu bu jógul ci ay responsabilité dina bëgg tëgg mbër mu waaw wax ji nag peut-être day jafe dégg pour le moment. mais buñ ci soree fii ak ci kanam. bu fekkee tànk yii ñuy demee nii nii nii ñoom reculé wuñu ko. dinañ bëgg a tëgg mbër tëleen parce que déjà communication baam am durant 10 yi yàq na lu bari. ci ay images. te duñ ko xam parce que li defar moo gën lu yàqu caat ndaw la toll ci avenir def ay résultat ci làmb yi nga xam ne képp ku ko def jox nañ la faveur li caatu yarax def bu fekkoon caatu yoof moo ko def heure bii waxuñu leneen la ñuy wax mais si communication bi sax ñi ko responsabilité dañ ko ciy manquel duñ ko si jox cër bi moom ci visibilité image bi duñ ko ci jox cër bu moom comme loolu man je ne pas c'est pourquoi te comme li may wax rek Bécaye Mbaye il a fait très bon rôle maanaam bi mu fi nekkee kay doomam ay raqam ay jarbaatam mi ñoom mooduloo ñoom Balla Gaye bi wax jotee wane na leen mm-hmm. bi fësal fa jotee fësal na leen mm-hmm. kon kooku def na rôle bu mag mais ñi ci des mooy loolu mais Abdourahmane comme li may wax dafa manqué responsabilité quoi ci liñ ko dénk parce que bu ko motoon du génn comportement yi noonu sooy wax te waxook say doom mm-hmm. dafa am nooy waxeek ñoom même contrat bu ñu liyee contrat la moomoo ñi ngay waxal juróo leen jëndoo leen te du yaa leen di diriger ci li ñuy def Caatu Yaraax jotul avance su Abdou Lahat bëriwul contrat buñ koy wax lenn nag lay conseil Caatu Yaraax na dem au niveau CNG bind ji fa lettre bi wane ni moom amul contrat ak ki nga xam ne mooy Gaston Production mu teel a def déclaration am ni amul contrat Gaston Production parce que jotul avance avance bi ci manager bi la dem te daa dem di jëli ji ñu buux ko avance bi caat ne ko dellool avance ma contrat kon loolu leeral na wax. Uh-huh. caat nag boobu ba tey moom déggante wala ki nga xam ne sax mooy manager am. foofu laa bëggoon ñëw ak yow est que tam jotut ki nga xamante ne mooy manager caatu yaraax génn euh, wax moom it muy ndooy. waaw mais xam nga souvent contrat bu meloon ni moom problème. Mm-hmm. mais yàgg nañ fi gis ñu jëlee contrat fësal ko publier ko. Uh-huh. mais luñ ciy nëbb nañ wane contrat bi. Uh-huh. ñëpp xam ñëpp xam lu ci ne contrat bi. manager bi day yor contrat bi. Mm-hmm. promoteur day yor contrat Euh, lutteur bi day yor contrat bi. Mhm. même bu fekkee du original copie yi ñoom dañ koy yor kon xam nañ lu ci nekk. Mhm. caat yebul waa yaraax bay wax ci contrat bi n'importe quoi te du réalité. Mhm. ñun ñii ñàkk ñu fulla ba nit di ñu dugal ci li nga xamante ne ay waxu kasar kasar la. parce que lu mu lu ñu mën mën mën wax. dañuy wax ci li nga xam ne bu subaa buñ buñ ci toogee ñu am ci ndam. parce que ma temps bu may perte di waxal caatu yaraax la nga xam ne du dëgg quoi franchement parce que caat bi kalaa fi taxee. laataa bëre di am ñëw na wan ma contrat bi. ñëw na ne mag ñii laay dajal. temps ak temps lañ ma ci proposé kon kooku am na sañ-sañ wax ci. Uh-huh. mais mais mais en tant que nitu caat booba ak léegi est-ce que ki nga xamante ne mooy manager caatu yaraax mu ngi communiquer ki nga xamante ni mooy mbër bi di caatu yaraax. donte mooy manager am di manager Doudou Sané. caatu yaraax sax dama ko ne bu liy jàllee jëlal sa récépissé ci manager bi. mu nangu licence am nan nangu licence am ci manager bi. parce que kooku matul manager. manager. Mm-hmm. liggéey su fekkee ñun dañuy ànd di liggéey. Mm-hmm. gagnant gagnant bu amee sax dañu war a sàmb suñu intérêt ni ñuy sàmbee suñu intérêt mooy amoo droit def man lu ma la santul amoo droit dem ci li nga xam ne diisoo wuñ ci amoo droit def la nga xamante ne da koy def mooy naqari même bu fekkee yow dama la bàyyi woon tey ci bitig bii ngay jaay soo jaayee yëre ba nga xam ne bokkut ak prix ba ma la sant bu mu ñi da ngay am problème ménagère nan ngay demee di accorder contrat bi nga xam ne mbër mi yebal la loolu du dëgg. te manager bu yor caatu yaraax moo yor du dut saane. kon xanaa intérêt général bi nga ciy carte ba tax di sacrifier mbër mi ci lu dul dëgg. macha allah am na solo. ñenn ñi ne Ndoye dafa mel ni ku farak côté euh, li nga xamante ni mooy kaawu euh, Gaston production wala kaawu Doudou Sané xaw a minimiser ki nga xamante ne mooy caatu. waaw ñoom loolu lañ koy jàngatee xam nga manque respect weesuut coow li am boobu léegi nii génnoo. manque respe weesut loolu quoi parce que moom dafa yor nit. te ci këyit la tënku ci yor bi. kon bu lii amee da ngay génn nga def rôle responsabilité. bu fekkee nitu dëgg nga. nga ne li ak li ak lii moo am. bu caat tooñee ñu xam ne caat moo tooñ. su fekkente ne manager bi moo tooñ xam ne manager moo tooñ. su fekkee promoteur moo nekk ci dëgg ñu xam ne promoteur moo nekk ci dëgg. coow làmb nee naa la commencé wul fii tey te du jeexee tey. te coow làmb làmb amul coow du làmb. làmb yi nga fi gis mi am succès yëpp coow la. bu demee ba mbër siw fii bu demee ba mbër keneen coow la parce que lamb ak coow ñoo ànd xam nga moo gét mos na ko nee na business yi muy def lamb moo ci gën ndaw te moo ëpp coow lamb moo baaxoo noonu dafa am coow mhm. waaye lu mu am am coow rek ñi ko séeg nañ nekk ay responsabilité ba nga xam ne bu subaa du ñu am kerse si kanamu askan wi mhm. macha allah tey Abdoulaye Ndiaye même ba mu taxawee cité na ay turu ci mel ni Fadamtu ku ci mel ni euh, Abdou Aziz Ndiaye ne ñoom ñoo dox ci xelu caatu yarax doon ko woo di di wax ak moom pour mu bañ a li bëre li nga xamante ni mooy ko bi tey loolu lan ngañ ci mën a leer. Abdoulaye Ndiaye bi muy wax keroog maa ngi toog wës jàmbaar a ngi toog caatu yaraax a ngi toog wës sax moo ma ne dugal dugal dugal dugal direct bi ñu seetaan. Mhm. bi ñu duggee ñu déggee kàddoom. Mhm. bi muy wax maa njëkk a toog ne kii matul responsabilité. parce que bu fekkoon mes na responsabilité dossier bi bu tollee fii. Mhm. nga bëgg a sauver Gaston production ak comme li ñuy wax. tey comme li ma waxoon Gaston. def na ci làmb la nga xam ne bu làmb amee cent pour cent soixante quinze yi moo ko moom mu neex mu naqari kon ko kilifa la ci tey teel a comprendre sax moo tax mu jël doomam dugal ko ci ba mu mun a doon héritage bi kon bu tollee fii moment bi c'est pas le moment de parler ci négativement Abdou Lahad waroon na mën a gérer communication bu bien ba makan fu mu munti nekk mu am fa tranquillité macha allah mais mais Abdou Aziz na moom it leeral kàddu yi nga xamante ni Abdou Lahad Ndiaye wax. waaw man ba déggoo ba ma déggee wax ji laa ne lii du waxu Aziz Aziz ban ban ñàkk fayda la am di woo Abdou naan ko diw moo a wax nangam mais loolu ku ko dégg sax premièrement nga xam ne loolu du waxu Aziz. Mm-hmm. Aziz manqué na manqué ba nga xam day woo diw naan ko ci contrat ba nga xam ne yoonam nekku ci kii fay mbër 100 millions. Mm-hmm. kii bëre combat yi gën a mag ci événement bi. Mm-hmm. sa instant bii nii combat yi gën a mag ci événement da dugal baatam te confirmé na ko démb. Mhm. confirmé na ko démb te bi mu confirmé Sénégal yëpp xam nañ ne li Aziz wax moo gën a wërkalu Abdou Lahad wax. Mhm. ba wax sax ba lim fépp fi nga xamante ni Abdou Lahad Ndiaye jaar na fa muy bàcc seeraas Pape xam nga dama la ne nit dangay am ngëm-ngëm ba pare bu fekkee jub nga. Mhm. doo jaar fii tey jaar fële jaar fee jaar fee gannaaw suba lenn laa d' accord bu ñu ko sekkee. su ma demee bay bàyyi rek su ma waxee na ñëpp d' ne man maa mais bu fekkee dañoo sekki liggéey chaque jour yow nga bàyyi ci li nga xam ne sa défaut la mm-hmm. dañ lay jàppee nit ki nga xamante ne yow fideloo ci li nga nekk mm-hmm. te loolu am na lu mu lay yàqal ci lu bari parce que image dafa garaaw mm-hmm. gis nga ni mu lay taalee noonu la lay fayee mun na la taal un an fay la cinquante ans yoo dul tàkkaat waaw nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon Abdou Lahat suy génn te yor communication Gaston Production na wax avec responsabilité mun nga wax ak responsabilité doo menacer doo yuuxu doo wax délit te nit ñi dañ lay dégg parce que làmb toll na fi nga xamante ne benn booy sax bu waxee dañuy xool lan lay wax rawatina Abdou Lahat nga nekk communicateur Gaston production ci moment bi nga xam dañ lay xaar pour nga génn boo génnee lan ngay wax di def lu dul ay cité ay nit diw moom wax nangam di moom sax loolu rôle irresponsabilité la waraloon wax loolu dafa juum. am na solo macha allah tey ëllëgu caat caatu yaraax ci làmb ëllëgu caat ci loolu lañ taxaw moo tax tey mu demee nii. Mhm. parce que duñ nangu tey ku koy sacrifier ci di n'importe quoi. Mhm. xam nga tey da ngay dar gémmiñ sax ñu ne la caat dañ kaa fay combat 2 millions caat contre Mame Balla 4 lañ ko fay yi teg contre Mame la 4 millions yi teg lañ ko fay kon bu ñëwee di bëriwaat chaque combat kalaaf 2 millions loolu wax dëgg yàlla c'est des kase minéraux te loolu yëpp je pense que rôle pour rôle ménagère la loolu responsabilité ménagère la ménagère moom mooy baaxal produit am ba mu baax moom mooy jafeel produit am moom mooy négatif loo produit am mais mi sport mhm. mi tennis mi sport boo mënti gis manager moom mooy seeral produire am moom mooy ñàkkloo fayda produire am mhm. te manager dafa bëgg a ñàkkloo fayda caatu yaraax te ñun duñ ko nangu parce que manager bu fekkee dafa dugg nar a dugg ci nga xam ne dañuy jël si nga xam ne mooy responsable delloo ko keneen ku moom mhm. macha allah mais est-ce que tam ngi topp euh, li nga xamante ni mooy mooy mooy procédure bi yéen koy topp waaw caat doful xam nga caat nekkul mbër ba nga xamante ne dafa xëy rek topp làmb avant làmb am na ci li mu nekkoon soo xoolee sax durant contrat CLAF yëpp dafa pose liggéeyam bu responsabilité bi nga xam ne da koy fay kase bu seer caat am na métier am na liggéey bi nga xamante ne boo xoolee un an ngi da teg ñëpp xam nañ day liggéey ministère ñëpp xam nañ ni day liggéey la nga xamante ne mun na yor këram kon bu posé loolu am na lu ko làmb jaral ah léegi bu ko posé ba pare dugg ci làmb te mënu ci gis boppam mhm. caat yarax boo ko fëggoon nii ne ko génneel ma tey benn lan moo ko waral léegi après ñun ñu ñëw di bëre ci waxu kase kase mhm. Abdou Lahad la muy liggéey du mu ngi ci am dara caat du liggéey ci lu mu dul am dara mhm. mu neex ko mu naqari ko caat moom lay neex mu bëre neexu ko du bëre mhm. moom Abdou Lahad la 28 boobu noonu caat du ko bëre du ko bëre la 28 bi caat bëreew ko déggoo may la ameluñ Gaston production contrat manager bi nag bu fekkee moom moo amel Gaston production contrat ah. bu bis ba jotee na dem bëre ji na dem bëre ji waaw am na solo waaye bu leen fàttali ñu ngi fii ci Dalifort bitig bi nga xamante ne mooy Kaay Sañse képp ku bëgg a sañse lii ma sañse rek fii ngay ñëw mu def ak yooyu baax numéro bi. numéro bi mooy 78 198 92 39. waxaat ko ma dégg. mooy 78 allah numéro bee nekk noonu képp ku ci bëgg rek da lay foo mën a nekk ci senegal boo ko soxlaa euh, nga nga nga nga commandé mu livrer la ko ak ak livreur am bi nga xamante ni macha allah. da la koy da ngay commandé léegi mu indi ko léegi Baye Dame borom yaraax da ngay commandé léegi jot ci léegi. te gars yi dañoo fàtte ni xam nga dégg naa ñu bari sax naan ay caat daa ragal Doudou Sané ay day nii ak naan Doudou Sané bi kalaaf bi amee turam fasul kalaaf ñoom ñi nga xam ne ñoo tëgg kalaaf bi sax laay wax dañu favoriser woon caatu yoof favoriser Garga 2 Garga 2 biñ gisante stade dama ko ne lan moo la dugal ci kalaaf yi ak nan nga négatifé di bëreeg nii Doudou Sané ba mu lay dóor mu ne ma damaa juum maa ngi lay suivre chaque jour noo ko wax dara. Uh-huh. parce que nit mooy juum. Uh-huh. mais ñoom dañoo defoon seen i faveur fay leen ay prix yu différence ak yi ñu fay ñeen nañi uh-huh. ba pare si leen ay contrat wu final. ne leen boo leen demee final mun nañ leen fay temps. caat ak promoteur bi eggul ak moom ci loolu. parce que amuñoon yaakaar ni moom day dem finaal waa léegi bu fekkee ndaw da nga ko liggéeyloo amoo ci moom yaakaar ba liggéey bi réussite yow waroo am mbégte mun kaa fay def jox ko mais ñun ñi nga xam ne tey dañuy yor ay boy sax di leen liggéeyloo mais suñ ñëwee gis ni liggéey mu ngi avancé dañ leen di jox ay récompensé pour mu am continuité la mais mais su ma la déggee mooy dañoo jël ñi yaakaaroon ni ñoom ñoo war a finalu signé ak ñoom contrat pour final. non xam nga tey man gisuma contrat wu keneen ku dul contrat Thiatou Yoff parce que bëgg naa lu may wax rek bu subaa bu ko nit xoolee xam nay waxu nit la. Thiatou Yoff moom jël nañ ko mu ne contrat waxal na ci boppam ne moom contrat bi mu gis ni Thiatou Yoff yor na ko te was jàmbaar wan ko ko. bokkul ak contrat moom biñ ko signé moom nee na contrat wu quatre combats pare woon na pour bëri final. Mhm. ba ñu proposé ko temps ay waxam la no kon ci loolu lañ mën a jaar parce que gisuñu contrat bugguma tooñ. Mhm. mais li may wax ba wax ba leer. Caatu Yaraax tey bu pare oon pour bëre ak Doudou Sané si la làmb di xam ne Doudou Sané ñam doon daan ak caat bokkul daan Doudou saane moo gën a yomb daan ki nga xam ne moom mooy caatu yoof wax ji nag déggoo li ma la wax ji day jafe daan Doudou saane moo gën a yomb daan caatu yoof njaaytin bi ñuy bi ñuy bi ñuy minim bi ñuy minimiser naan caat ni mu ko daanee daa yom mhm. ki kat daan parce que champion la champion bu la daanee sa faible day feeñ mais Ndiaye Tine rek bu doon bëreeg Doudou Sané day métti parce que xam nga lu tax mhm. Doudou Sané du attaqué da ñëw ci kaw mu mën a dal sa kaw te Ndiaye Ndiaye Tine du attaqué te caat mburu attaquant la du la déglu du la xaar mhm. mais nag mënaguñ wax ci combat bi parce que jotul pour ñu bëreeg moom mais tey su ñu waroon bëreeg Doudou Sané tey mhm. kon Doudou Sané ñoom Sénégal yëpp dinañ xam ne Doudou Sané ay qualité des na ci làmb parce que mbabat ak arène bokkuñu mais mais su ma la déggee tey même bu dul final bi ngeen war a dajee yéen ñaar su demee ba loolu féete côté promoteur ñëw bëgg seen combat ak Doudou Sané fay leen xaalis waaw mais xam nga loo gis rek caat am na staff. Mm-hmm. ñun ay responsabilité lañ ci li ñuy wax. Mm-hmm. mais caat am na staff ku dul man. Mm-hmm. staff am xam na nan lay décider. moom mbër mi xam na lu ko gënal. xam na lan moo nekk ci kanamam. te làmb sax ñooy njëkk a décider ne la diw ak diw combat la laataa ngaa wax. caat fii mu toll di position même bu dul dut saane. ñi mu war a bëreel ñi ci kanam làmb xam na ko. boo dénkoon kenn micro léegi léegi mooy la caat ak diw combat la. jarul sa caat di ko wax di amateurs yi ñoom ñoo lay ne diw ak diw combat la uh-huh. parce que ñoom ñoo koy suivre ñooy dagg ticket ñooy dem stade kon xam nañ lu logique xam nañ lu jaaru parce que promoteur day dépendre ci amateurs yi li ñuy communiquer. Mm-hmm. Mm-hmm. macha allah am na solo euh, Yaya Kara borom kaay sañse kontaan naa ci yow waxtaan bi am na solo tey boo amoon loo xamante ni bëgg nga ko wax te jotuñu la koo laaj lan lay doon. waaw parce que comme ci waxtaanu làmb lañ doon waxtaan rek question yu bari bëgguma ko wax si sama parce que bëgg naa bàyyi ba ci kanam ak kanam quoi. Mm-hmm. am na yi nga xamante ne moom. <laughs> nañ ko def code rek ba ci ah, kanam comme ci làmb la nañ wax ci làmb rek après ci kanam dinañ dem ci loolu spécialement war na am waaw Loso war na am combat mook caatu Fora ñoo mujjee bëre boo xoolee presque décembre 2023 la uh-huh. te en plus boobu ba léegi ça un an mhm. war na am nag li problème bi je pense que mu ngi ñu ngi koy jox ay mbër mais peut-être arrangé wuñ ko moo tax mhm. wala soit kase yi ñu leen di fay moo dul baax ba tellement mais Loso war na am combat balaa uh-huh. saison bi di tëj c'est normal en plus félicitation moom mu ngi def lu am solo ci yaraax mhm. boo xoolee démb rek lam doon liggéeyloo Moussa Ndoye ku xool Moussa Ndoye was jàmbaar di ko defloo loolu mhm. nga xam ne cër am na parce que sa employé sax mun nga ko jël mu lay liggéeyloo parce que li ngeen lim leen jiiñ la voilà kon was jàmbaar félicitation massion spéciale mbër la ba pare nangu di fournir énergie boobu noonu ba pare boo xoolee sax da ngay naan was jàmbaar tey moom moo nekk mag ci loolu te fekk <laughs> moo ci gën a nekk xale waaw mu ngi noonu comme nag di wax uh, waa yarax combat yi nga xam ne dégmal nañ ko na leen ci yàlla mbay ndam comme ne man ragalu ma féete yarax laa dëkk di wax ni kaw si setam mu ngi ciy bëre combat ki nga xam ne mooy feu ñu ngi koy xaar parce que am na fu mu positionné woon ci làmb te foofu du place am moom mooy ñëw confirmer tam ni foofu du place am war na daan feu rouge avec manière bu bëggee am combat bu baax parce parce que ca ca kaaw xam na ni feu rouge yóbbu ko fenn ci làmb mais pour mu mën a bokkaat ci làmb ji faaw mu daan feu rouge avec waaw na takk dàlla yi ànd ak ñoom Moussa Ndoye ànd ak ñoom Moussa Jàmbaar bokk ci entraînement yi mu mën ko apporter lu bari bara combat bi di ñëw parce que juillet yàggatul waaw. am na kontaan naa ci ñoo la gën a kontaan baax a baax. am na solo mbokk yi leen leen indiloon tey ñu nekk nga xamante ne mooy Yaya Kara borom Kaay Sañse nekk fii ci Dalifort nee naa leen mbokk yi numéro bi moo nekk noonu li nga xamante ne wax na képp ku ci bëgg rek fii ngay ñëw ci Dalifort ci wetu terrain baske bi. foo laajte kaay sañse ñu indi la ko di bëgg sama caméraman di ko joxaat wàccuwaayam bu baax a baax Aliou di bëggee le livreur ah Dame doomu nday Baye Maas Maas borom yaraax ñu koy bëggewaat bu baax a baax di leen jox daja beneen yoon ak beneen daanaan jaajëf